lawgu dara moo tax ma ne leen dafa am temps wu dialogue la mu waroon jaloog jaloog na ko te jaloog ya mu def yëpp amul benn bu ci dara tukkee loo xam ne njëriñu askan wi la ay deal la ay compromission la te loolu moo indi lii am tey bu ñu demee ci temps wu période électorale foofu jaloog amatu fa fii lii ñuy wax mooy constitution mooy institution mooy république ay mooy le droit des citoyens droit inaliénable bu citoyen sénégalais ñu dem tànni seen nit foofu dialogue amatu fa président ku muy dialogueel benn dialogue rek moo fi war a am mooy le 25 février 2024 sénégalais yi génne seen kër dem ci urne yi tànn ki leen doy pour mu nekk seen président bu ñu paree ñu ñibbi kañu fal ku bëgg dem demal yow yaay xool devant l'histoire tey la sénégalais yi di tànn ceux qui sont les traîtres à la république et ceux qui se mettent du côté de l'histoire et de la république